lay nuyu. ñu lay ziar bu baax di la fay nuyu. tur bi naka la. Mass Ndiaye. lan nga ci xale bi nga xam ne moo daal di ñàkk bakkanam ci place bi. waaw xam nga comme yàlla bu defee doone li moo def daf maa naqari dañuy sant yàlla rek métti na nag ba fa métti yam xale bi suñ kanam la jur ñoo ko ngénte ñoo ñu yaayam gaañu kii ñoo def loolu lépp jàkkaarloo ay kër kon xale bi li ñu mën a wax muy yërëm papaam trop comme ni ko papaam waxee rek lu neex papaam rek neex na ko kon bu liy amee dañuy sant yàlla waaye nag dina métti trop ndax doom moo sax ci xol waaye di di ñaan li ñu li li ñu gënal daal dëgg-dëgg yéen ñi nga xam ne lii mooy seen liggéey ak euh, sappoor jéem ñu jàppale rek pour ñu fekk yàlla dogal na ko ñu mën mën ko denc rek pour di ko mën di ñaanal ak yooyu daal bokk na ci li xam ne bu ñu ko bu ñu bu ko yàlla dogal di dina ñu gënal waaw. d'accord depuis démb ba léegi yéen a ngi wër mais amagu leen benn nouvelle ci li nga xam ne moo di xale bi. waaw démb ba léegi parce que démb fii nekk nañ ci ba ay cinq cinq heures du matin gisuñu dara amuñu ci benn nouvelle vraiment comme léegi nii la ñu woo rek ne ñu mu ngi fii Malibu mais gis nga ñëw nañ mais gisuñu dara vraiment daal ku ñu ci jàppale pour mu ñu gis xale bi daal loolu rek lañ am pour bëgg ko daal bu ñu ci mm-hmm. naka information kon rek seen daal di nay lab ci biir géej information daal démb ay 13 heures dañ jekk saa rek ku nekk nekk fi ngay liggéey ñu woo wax la ko mu nekk lu lu bett tamit vraiment nekk loo xam ne kenn foogu ko woon ndax xale bu la tàggu nee na maa ngi jàngi wàccul loolu vraiment bu feebaran sax ne dafa feebar garaawul mais dafa jàngi mm-hmm. wàccul loolu loolu nekk na lu lu lu day waar mais lépp rek dañu koy teg ci suñ loxoy suñu borom subhanahu wa taala te xam ne mu bëggee rek yaam ñàkk bi mu ko ndax ku góor ki nga xamante ni moo ko doon jéem a sauvé bi muy lab ndax moom tamit xam ngeen ko wala xam ngeen ay mbokkam wala non ku góor ki moom fii lañ xam ay mbokkam rek ci place bi nii fii lañ xam ay mbokkam ci place bi nii mais xam naa ne ñoom ñoo bokk école bi ñuy jàngee mhm. mais fii lañ xamante ak ay mbokkam vraiment à part loolu moom xamuñu si xale bu góor bi dara mhm. waaw d'accord ndax dem bi ngeen ñëwee fekk ngeen fi ñi nga xamante ni ñoo yor sapeur yi wala waaw fekk nañ leen fi démb bi ñëwee tim ñoom nee nañ def nañ la tu li ñu mën mais gisuñu dara daal nañu ne nañ wax nañu sax ay di di secteur la war a génn mais du génne sax côté bi ñu ñoom côté bi ñu duggee nee nañ buñ génnee côté boobu ay di secteur secteur daal dinañ feeñ la lañu la ñu waxan mais finalement ba léegi daal ñoo ngi nii di voilà gisuñu dara daal vraiment d'accord message ngay lancé jëmale ko ci waajur yi jamono yi ñu nekk nii ñu gis ne géej gi neexul ñi nga xam ne dañ ciy ñàkk seen bakkan doon na xamante ni ñu bëri lañ aussi waaw xam naa ñu ba a bàyyi xel rek xam nga góor bu xëyee li muy def mooy uti lu njabootam lekk kon jigéen ñi nekk ci kër kër yi tamit ñu bàyyi xel ci xale yi parce que boo xëyee bàyyi sa njaboot buñ ku jàngi war nga xam heure bi muy wala heure bi muy kon boo toogee ba war nga bàyyi xel bu baax a baax heureusement sax li ñu may chance mooy xale yi xale yi mu àndalan am ñu ci vigilant nañ ñoo jël téléphone bi kut ko kut rek woo ñu ñu mën a xam mais daal li may lancé message mooy ñu gën a bàyyi xel ñu njaboot gi daal yéen bàyyi xel bu baax a baax a baax waaw loolu daal waaw déclaré def nañ déclaration dem ci police yi dem ci gendarmerie yëpp def nañ déclaration mais ba léegi voilà quoi. non daf may daf may daf may dafay def nekk lu garaaw ci ci man. Mm. dañuy dafay nekk lu garaaw a garaaw ci man parce que lu tax man man mi di wax ak yow sama doom bu góor heure bii daaw nii la defan à l'âge de 22 ans. Mm, noonu la noonu la demee moom te mu sonn ci trop. mel ni moom moo jur xale bi man te moo tax vraiment lépp lu ma mën dama ko ciy def rek. tey jii su fekkan maa ko war a feeñal tey barke alxuraan kenn tey day feeñ léegi-léegi mais ñeewante naa ko trop trop trop si koo xam ne nii taaw mu nekk sa taaw mm-hmm. vraiment yal na ko yàlla feeñal daal mm-hmm. te yàlla xare ko ay ajan mm-hmm. wala am pour wax daal xale bu yaru xale bu ouvert xale bu jox ñëpp cër nag vraiment xale bu jox ñëpp cër xamewul xamewul ci sama rak la xamewul ñëpp la jox cër respecté ñëpp jàng wàcc ñëw toog seen kër xëy na nag moom lu liñ naan lu mu rep rek da koy ñeme mais ay géej yi sax xamu ko xëy na yàlla moo ko woo pour mu wuy si ko fii rek mais vraiment voilà ñu koy ñaanal daal yal na ko yàlla xare àjjana maa ngi lay fay mm-hmm. tur naka la bàyyi si si tamit ñu daal di lay fekk si si place bi euh, tiis bi daal di dal ci sa kaw ndax mën nga ñu jox ay information rek ci li nga xamante ni moom moo daal di xew waaw sama doom bu jigéen mm-hmm. mu ngi judd le 25 février 2005 mm-hmm. ñu koy wax faatu Fatou bu si dafa génn kër ga jàng si école école Jean-Jacques Rousseau fa lay jàngee man ay vers 14 lañ ma wow fekk ma maa ngi Dakar ñu woo ma ni ma sa doom bu jigéen dafa am problème mhm. euh, place u gàddaay. problème problème waaw parce que bi mu nee ma problème dama insister ni ko ban poroblème mu ne ma non dafa am poroblème rek mhm. ma ne ko wax ma dëgg su fekkee ni dafa lab mu ne ma dafa am problème ma ne kon xaaral ma ñëw gàddaay mhm. ci laa ñëw gàddaay bi ma ñëwee effectivement li ma doon njort mhm. moo mujjee am mhm. sama doom bu jigéen dafa lap mu nekk naqar boo xam ne metti na ma trop. ndax bi muy lab moom kese moo àndoon wala de am na ñeneen ñoo xamante ni ñoom la àndaloon. waaw seen camarade euh, école la àndaloon. am na benn booy boo xam ne ñoom ñaar ñoo ànd lab ci géej gi. Ah, waaw. ndax gis ngeen euh, seen ñaari doom yooyu wala ba tey kenn gisagu leen. waaw ba tey kenn gisagu leen nag mm-hmm. ba tey kenn gisagu leen mm-hmm. ñu ci sàkku ndimbal rek mm-hmm. képp koo xam ne gis nga koor yoo xam ne dañoo génn ci géej gi nga informe ñu ko waaw. d'accord ndax ñoom dañoo ñëwoon ngir sangu wala dañoo demoon jàngi rek ñëw fii ngir feexluwaal. waaw mais man sama doom jàngi la ma tàggu. wallaay óoruma woon ndax géej la jëm. ndax yàgg naa ci discuité ak moom chaque jour maa ngi wax ak moom ci yu mel noonu mais nag lu war a am jaam bi mënu ci dara dañuy dellu ci yàlla mi nga xam ne moom moo ko moo ma ko joxoon moo ko jëlaat kon li des mooy ma nangul yàlla rek li ma naqarlu nag mooy li ma gisagut koor bi mais nangu naa li yàlla dogal waaw. ay 14 heures la. ay treize heures la ba léegi nii. ba leen benn information ci koor bi. ba léegi amaguñu benn information ci koor bi mhm. waaw. d'accord Khady ñaata at la am. Fatou Fatou. am na mu ngi judd la vingt cinq février deux mille cinq mhm. kon am na dix neuf ans. waaw sa taaw. waaw mooy sama taaw waaw. Mhm. kàddu yu seede nga mën a joxe ci moom. waaw doom la woon boo xam ni jege na waajuram bu góor. ndax waajuram bu jigéen dafa génn àdduna mais. yàlla def na ni taxaw naa ko taxaw waajuru góor taxaw ko taxaw waajuru jigéen moom sax da koy waxal boppam mm-hmm. waaw seere naa ci moom ni ku ma yërëmoon la ku ma yërëmoon la mm-hmm. ci lépp loo xam ne rek ne naa ci mm-hmm. daf ciy nekk waaw dëgg la nag lii lu yàlla dogal la fu mu ne nii mënuñoo wax leneen lu dul wax alhamdulilah rabbil alamin waaw d'accord biñ la woowee ne la sa doom daal di dinay lab ci place bi nga ñëw boobaak léegi ngay wër koor bi yaayam daal di génn àdduna mu nekkoon benn doom boo xamante ni moo di sa taaw nga ko doon xoolee sax yaayam laa koy mën a waxee ban yëg-yëg nga am waaw naqarlu métti méttit rek méttit naqar ak tiis rek mais ñu jël ko rek delloo ko yàlla ndax yàlla moom moo ko bindoon moom moo ko jëlaat kon dañ koy delloo yàlla rek waaw. ñaanal ko rek mm-hmm. ñaanal ko rek loolu rek laa ko deseel mm-hmm. ndax doom la nangu ne man maay papaam ma ne ma nangu ne man man moom sama doom la mm-hmm. waaw lépp lu bàyyi di defal doomam jëm naa ci sama kéemtulaay kattan lépp lu doom di defal baayam rek moom def na ci kéemtulaay kattanam. dëgg la doom waajur daf koy yar mais nag moom nanguloon na ma ci lépp ci zaahir ak ci baatin waaw mais nag sant yàlla rek soxna si. d'accord moom dafa doon faral di dem géej di sangu ji wala c'est la première fois mu def ni ni mel. waaw mosuma cee njort loolu nag wax dëgg yàlla mosuma cee njort loolu. man moom mu ngi doon def quatrième. quatrième waaw. ban message ngay lancé jëmale ko ci waajur yi ndax gis nañu mbir yu mel nii li nga xamante ni moo di période tàngaay bi li mu ci xew doon loo xamante ni lu bari doon tey bu amoon message boo fi bàyyi pour nga xam ne di parents yi ban message lay waaw waajur yi moom man xam naa ne ñu ngi def seen kéemtulaay kàttan mais xale yi ñoo naqaree lijjanti ndax sa doom tàggu damay jàngi teere gi géej loolu waajur mënu ci dara. ndax waajur moom yar rek la am mais bu ñu xëyee ñu ngi daw uti lu ñu indi kon lii am après yàlla la daal man waaw. waaw parce que dañuy gis ni ñu ngi ci plage bi nii boo xoolee ay xale rek ñoo fi nekk te ba tey gisuñu kenn koo xamante ni mu ngi éduqué xale yi boo xoolee nii sa kanam si ginnaaw ay xale rek ay élèves ñoo fi nekk. waaw sànq rek maa ngi ciy waxtaan ak suma waa ji bi ñu toogee fële ay collègue yoo xam ne ñoom ñoo bokk classe ñëw ci géej gi mu ne ma xoolal ma ñii ma ne ko ah, dañoo dal xel rek mais autorités yi war nañu dimbali ndax démb bi loolu xewee bi ñu wootee pompier pompier bi mu ñëwee benn dugg génn la def ni ñu géej gi dafa lëndëm. te démb bi mu amee la. démb bi mu amee benn dugg génn lañ def ni géej gi dafa lëndëm mm-hmm. waaw. lépp loo xam ne mën nañu ko dimbalee ñu dimbalee ñu ko ba lu xew ci ci xaalam bi rek ñu mën ñu dimbali ñun jaamu yàlla yi nga xam ni dañoo desee matadi ndax bu ñu matoon xam tey li xew ma man géej man dinaa dugg ci géej gi génnee ñi nga xam ni sama deret la waaw parce que li may naqarlu sànq rek moom laa la waxoon mooy nangu naa li yàlla dogal mais li des mooy des gi mu des ci géej gi loolu rek moo ma touché te mënul génn suma xel tant que gisuma ko jébbal ko boromam. non non amaguma ci benn renseignement. léegi rek lañ ma woo ne ma mu ngi Malibu biñ ne ma ma mali bu ñu taal oto ñëw Malibu mais gisuñu dara. waaw waaw hôpital sama frair yi dem nañ fa police tamit police su Malika suma benn frère dem na fa démb bi mu demee joxe na fa sama numéro. ak numéro mm. waaw. d'accord jërëjëf ñu ngi la koy masaw bu baax a baax. jërëjëf yow tamit.